salut les amis ziar naa leen bu baax a baax daleen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey nag dañuy def beneen épisode bu spécial Euh, c'est vrai que bokk ci saison onze bi nga xamante ni ci lañ nekk di def actuellement di ci wax ci affaire jeu euh, mais dafa nekk benn situation boo xamante ni euh, du mën a urgente la sax mais en fait spécial moo tax tey ñu organiser émission bii nii pour waxtaan ci benn xew-xew boo xamante ni ñu ngi koy dëgmal nga xamante ni mu war a am le 17 ak le 18 novembre incha allah boobu nag nekk Dakar Agile Tour 2023. alors xam naa nag bu ñu ne Dakar Agil'Tour 2023 ni ñu doon laajte lan mooy loolu lan mooy Dakar mais tey on a eu l'occasion euh, ñu invité fi ki nga xamante ni moom moo ko organisé maanaam. entreprise bi nga xamante ni ñoo ko organisé ak partenaire am yi nga xamante moo nar a ànd ak moom ci xew-xew boobu noonu alors je pense que nag dina nekk épisode bu am solo euh, pour waajtaayu xew-xew boobu nga xamante ni mu ngi koy déglu comme ni mu ko waxee léegi le 17 euh, euh, waxtaan ci nag ci épisode boobu ci épisode bi nag tey dañ ciy ànd ak suñu ay yi nga xamante ni dina leen léegi ñoom ñu nuyoo ku ci mel ni Alexandre Badjidi nga xamante moom moo nekk CEO réseau atypique digital euh, Mouhamed Gueye aussi nekk ki nga xamante ne moom moo jiite entreprise bu wax Futurize Mariétou Diédhiou nekk président Euh, Daara IT comme je pense que gars yu bëri ñoom xam nañ ko yàgg na jaar ci euh, podcast Wolof Tech bi Daouda Ba aussi nekk président Galsen Dev moom aussi euh, mën na podcast Wolof Tech je pense que ñun la ñu dalal tey ci épisode bi ñu fas yéene waxtaan ak ñun ci xew-xew bu nga xamante ni moom moo tudd Dakar AgeTour 2023 alors Alexandre Biagui ñu ngi leen ziar nañu bu baax a baax daal ak jàmm ci podcast Wolof Tech. jërëjëf El Hadj sant. Euh, jërëjëf ci invitation bi. kontaan naa vraiment ci invitation bi. Mm-hmm. merci beaucoup Alexandre di nga ñëw léegi léegi léegi ci ñu xuus wax pour nit ñi xam exactement euh, lan mooy euh, Dakar Agir Tour 2023 alors benn invité bi mu ngi tudd Mouhamed Gueye moom nekk partenaire ci xew-xew bi nii Mouhamed ziar nañ la daal la jàmm ci podcast Wolof Tech Euh, delloo ziar euh, El Hadj euh, maa ngi si teewee jotaay bi tay ak ñoom Alex ak ñoom ñëpp. Mhm. laisse la parole pour que ñu wéyal programme bi. incha allah Mohamed je pense que yaa ngi door a ci podcast Wolof Tech. Ah, c'est la première fois nag may ñëw si podcast tout court. ah ouais. je pense que ce sera benn événement bu une expérience boo xam ne bu. bon ce sera ma première expérience en tout cas. waaw surtout nag ñu war ko def en wolof. waaw waaw <laughs> bàyyi bàyyi français bi. <laughs> alors alors benn invité bi euh, mu ngi tudd Mariette Diédhiou nekk euh, présidente Galsen euh, ah, Daara IT Mariette moom yàgg na ñëw ci podcast Wolof Tech ziar nañ la bu baax a baax moom moom jarul ma koy wax waxal olof quoi aywa Mariette. delloo ziar bu wér Elif maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp aussi suñu partenaires yi nga xamante ne ñoom lañ fi teewal di leen rafetluwaat bu baax jotaay bi di leen également ci invitation bi man wax ñu tout yaakaar naa ñu bëri xam nañ ma maa fi jiite la communauté Daara AIP. maa si kanam tuuti dañ ci gën a xuusaat incha allah. ça marche incha allah alors beneen invité bi nag mu ngi tudd Daouda Ba nekk président Galsen Dev Galsen Dev bu ñu ko waxee je pense que ñu bëri nañ ko Sénégal aussi. Euh, Euh, ki ko jiite nag moo Daouda Ba yàgg nañu ci podcast bi Daouda Ba ziar nañ la bu baax a baax tëral ak jàmm ci podcast Wolof Tech. waaw Elif ñu ngi lay delloo ziar di di nuyu suñu invité yëpp ñoom Alex euh, Mouhamed ak Marietou. Mhm. donc di di rafetlu jotaay bi. Mhm. bon comme di aussi ñun daanaka Wolof moom suñu suñu kër la. Mhm. di di rafetlu teewaay bi après xam naa dinañ ñëw si programme bi waxtaan si événement bu ñu. une incha allah incha allah alors merci beaucoup ñi nga xamante ni ñoom la ñu invité ñëpp tey euh, donc sans plus tarder dem directement ci li nga xamante ni moo ñu tey ngir waxtaan ci xew-xew nga xamante ni moo nar a am ñu ko Dakar Agile Tour 2023 euh, ñi nga xamante ni moo nekk ATP digital ñoo organisé ko alors ñu dem ci épisode bi euh, dugg ci biir xam nañu fa war a waxtaanee tey. Alors, euh, je pense que Dakar Agile Tour Euh, suñu 2023 euh, peut-être amoon na yeneen euh, yeneen événement ñu organisé avant 2023 mais déjà li nga xamante ni bëgg nañ ko xam avant sax ñuy continuer mooy initiative bi fan la jógee te si loolu dañuy dañ koy laaj Alexandre Baguiti comme ça bu wax ñu initiative boobu moom fan la jógee mais juste avant ngay wax ci initiative fu mu jógee mën nga ñu wax présenter aussi wax si sa jaar-jaar que auditeur yi aussi xam nga wéykan jërëjëf Elib euh, so alors lan euh, euh, laa mën a wax ci man suma ma jaar <laughs> fii laa juddoo fii laa la. Uh-huh. xam sama sant du Diop Ndiaye. waaw waay ah, waaye bon dinaa dinaa tàqale daal ba <laughs> jéem a <laughs> lakk wala ak yéen ok sama sama papa fii la juddoo Thiès sama Euh, booy Sicap la fii laa juddoo fii laa yaroo euh, léegi euh, ma ma ma jot a dem Canada pour jàng fa tamit ba ba pare ñibbisi fii Sénégal pour démarrer Atypique Digital ak sama sama équipe. ok léegi man sama sama spécialité ak li ma li ma li ma neex mooy liggéey ci mbirum projet tabax. tabax ay ay produits ay services yu bees loolu daal mooy mooy sama passion loolu loolu moo ma neex. ok euh, léegi yàlla def ba ma jot a tase ak ñoom Mouhamed Gueye Marietou ak Daouda euh, ma ma proposé leen idée euh, liggéey ci Agile Tour Dakar gu ren ñu ne waaw dañ siy bokk dañ siy jàpp donc noonu la ñuy noonu la commencé préparer conférence bii di ñëw dans deux semaines. macha allah macha allah ça c'est bien alors fan la idée Dakar Agile Tour jógee. alors euh, AGETOUR déjà concept bi ci boppam France la jógee euh, dafa am benn benn spécialiste ñu koy woowee Patrice euh, Patrice Côté Patrice nag moom dafa bëggoon benn conférence boo xamante ne niroowul ak yeneen conférence yi. ok mu bëggoon conférence boo xamante ne da nga dem doo toog rek di seetaan da ngay toog waaye di nga jàng di nga participer di nga liggéey nga jóge fa ak dara daal. léegi mu ngi ko commencé léegi mu ngi fukk fukk fukk ak juróom fukki at ak juróom lañ ko commencé donc xaw na yàgg commencé na France waaye léegi mu ngi ci ay quatre-vingt-quinze villes dans le monde. macha allah nag ñun Atypique Digital daaw lañ ko commencé ñu ngi ko def euh, ñu ngi ko organisé Radisson euh, yàlla def ba ba mu dox ba mu jaar yoon te Mohamed sax mu ngi fa woon mu ngi woon euh, speaker la woon ci première édition bi yàlla def si xewal ba lépp jaar yoon alhamdulilah. léegi nag euh, ñu buggoon defaat lu gën ren ak yeneen partenaire euh, boole si communauté yi itam donc loolu la ñuy jéem a def nii boole si tamit euh, Wolof Tech seen podcast. ok saa def promotion bi. ñi mhm. ñi xam xam lii lu lu lu mu doon daal. ok ok macha allah ça c'est ça c'est hyper important mais je pense que sax man dama def dama juumoo c'est-à-dire waroon naa laajte déjà sax lan mooy Dakar Dakar Agitour Dakar Agitour waaw lan mooy Agitour waaw déjà. Agile Tour voilà mm. concept bi ci bopp donc Agile Tour Dakar mooy turu conférence bi daal Agile Tour euh, donc dafa am Agile Tour Paris Agile Tour Montréal Agile Tour euh, euh, ban si Pékin am na tamit. am na Vietnam am na yu dëkk yu bëri de. am nañ ko quoi. ok mais cest à bu ñu ne Agile Tour. Euh, euh, ci lan la ñuy wax ci biir Agile Tour du may général par exemple tey bu fekkee ne koo xamante ni mu ngi nekk terminal wala mu ngi nekk euh, di def informatique Saint-Louis tu vois moom xamul mosul dégg Agile Tour Dakar. mu ban aperçu ngeen ko a jox tey ci événement bi lan ci lan lañ koy wax d'une manière générale. waaw ci Agile Tour ci conférence Agile Tour yi dañ siy wax mbirum entrepreneuriat maanaam. Euh, création produit création service ak euh, euh, tamit nooy def ba innover naroo fa nekk di def ni ñëpp da nga war a ut yeneen manière yeneen façon liggéey yeneen façon collaborer ak sani say équipe loolu lañuy ñuy loolu la ñuy présenter foofu dañuy jàngal entrepreneurs yi ñoo xamante ne leaders yi tamit njiit yi ñu won leen ne li ngay def tey mën nga def lu gën suba ak fii ngay jaar léegi ay ay entrepreneur ñu bëri nañ fa nekk pour inspirer leen pour jàngal leen euh, ay master class dina fa am dama occasion connecté la euh, jàngaale ci communauté bi daal. ok macha allah ça c'est ça c'est ça c'est que ci loolu nag ci ngeen ànd euh, ak seen ay partenaires yoo ni ñoom ci Dakar Agile Tour 2023 bi ku ci mel ni Mohamed Gueye nest pas alors Mohamed yéen. Euh, naka ngeen euh, naka ngeen bokkee ci euh, événement boobu noonu ak lan moo nekk seen rôle ak lan moo fan la seen partenariat sax jógee ak Dakar Agile Tour ak lan moo tax ngeen dugg ci événement boobu noonu. déjà pardon avant ngay commencer mën nga présenter wàll sa bopp gars xam yow ay kan parce que mosoo yaa ngi door a ñëw ci podcast bi il faut que gars xam yow ay kan parce que voilà am na affaire yu grave yooyu def quoi ak sa ak bi surtout. <laughs> waaw léegi man maa ngi tudd Mouhamed Gueye maa ngi am euh, vingt quatre ans donc maa ngi nekk ci liggéey ci wàllum xarala bi teg bon ci ñi ñuy woowee yi en quelque sorte nekk di jàng ba léegi euh, ci loolu c'est évolué pour nekk euh, full stack DevOps après di DevOps pour ensuite nekk RSI euh, si benn boîte de la place bu tudd Quality Center. ok léegi man euh, bon sama amul pour entrepreneuriat bi mu commencé yàgg na donc mm-hmm. looloo taxoon ma lancé sama sama boîte avant loolu lancé na trois trois autres boîtes qui ont tous fait faillite bon en quelque sorte qui ont ñoom ñëpp dañoo. Euh, si laa mujj lancé Futurize moom euh, yëngu ci wàllu service numérique ak euh, créer ay application transformation digitale xeet yooyu noonu laa évolué évolué ba ñi may Alex sama xalan xamanteeg Alex nag ci réseaux sociaux yi la donc LinkedIn principalement lañ xamante voilà commencé ak moom di di ci post yi moo def xam naa ci la ma xamee mu message ma daaw ci agile bi njëkk a organisé Dakar mu ne ma ba xam euh, ça ça wala ça m'intéresserait man ma ñëw foofu participer. Hmm. ok ok ñu defee fee euh, euh, ça bi defe na. kii euh, Radisson Radisson Blu. ko defee. voilà Radisson donc nekk mu nekkoon événement boo xam ne ya amoon na networking bu bëri nit yu bëri échange yu bëri euh, xamante bu bëri ñu jàng ci lu bëri. Euh, commencé di collaborer man ak moom mu nekk sama mag tamit di ma conseiller ci lu bëri ba ni ñuy tëggaatee deuxième édition bi ren di di ñaan yàlla mu demee ni wala mu gën ko ba romb ko. di ñaan tamit ñëpp ku ko képp mën a fekkee daal mu bañ ko raté incha allah. ok ok bon allah ça c'est très top. Euh, alors euh, après Mohamed aussi je pense que am ngeen benn partenaire aussi boo xamante ni mais Mohamed dinañ ñëwaat ci yow ah, ci lan ngeen lan ngeen war a def ci événement bi ak seen contribution lan la euh, mais am na benn partenaire aussi boo xamante ni mu ngi tudd Daara IT nga xamante ni Marietou moom moo nekk présidente bi alors Marietou yéen lan moo leen boole ak euh, waa euh, ci événement bi ak waa Atypique ak naka la seen rencontre demee. d'accord bon euh, man nag ni ma def ba xam euh, waa agence de service xam nga ma leen woon avant mais dafa am benn jour daw dama ma contacté fekk on discuté waa ji yaay une organisation boo xam te ne ñu ngi préparé benn événement bu tudd Agilto et a il cherche avant partenariat avec les communautés ma ne ko alors ah, ça m'intéresse pourquoi pas donc ci euh, loolu après on a rendez-vous boo xamante ni m'a vraiment marqué parce que sama jour anniversaire la woon ils m'ont fêté mon gratuitement chose qui m'a vraiment manqué. ah oui c'est cool. Ah, <laughs> voilà euh, avant ça j'ai intégré le groupe WhatsApp et j'ai vu qu'il y avait d'autres communautés j'ai dit ah là ça commence à devenir vraiment intéressant déjà il y a networking boobu nga xamante ne déjà saxal nañ ko ci parce que ça nous a permis ñun xamante ne ay communauté lañ ñu boole ñu ñu xamante après on a étudié ñu étudier projet bi ensemble mu nekk loo xamante ne vraiment euh, ku ci nekk am na sa wàll ku ci nekk tamit euh, ñu ciy gis boppam daanaka parce que tey jii nii le fait déjà boole communauté yi c'est une chose boo xamante ne c'est phare et ñun communauté tamit bu ñu booloo yaakaar naa dina gën a mën a gën a a def promotion li nga xamante ne mooy événement Agile Tour bi nga xamante ne mu ngi fi pour ñun ci nekk ñun ñëpp ñu ci wàllum gestion de projet ci nekk yaa am ci li ngay liggéey donc événement bi ñëw doole ñu ci xam-xam donc ci noonu la ñu Alex mu nekk nit ku baax macha allah yaatal ñu ñu ngi ñaan yàlla tamit événement bi vraiment mu àgg foo xamante ne sax romb na xalaatam incha allah. macha allah ça c'est cool c'est top comme d'habitude man xam naa ni euh, ñoom Mariétou moom ak Daniel Aïti sont dañuy jaxlaf trop luñ bokk moom yaakaar naa ni di ngeen am ay résultats yu baax incha allah alors beneen partenaire bi nga xamante ni moom aussi mu ci biir langue gi comme ni nga ko waxee mooy Daouda Ba euh, avec euh, Galsen Dev nga xamante ni yaakaar naa comme ni nga ko waxee ñoom ñoo téye développement bi quoi je pense ñoom ñoo téye développement Sénégal. <laughs> <laughs> alors Daouda yéen euh, naka la seen rencontre demee ak waa euh, Atypique euh, ba ngeen bokk pour mun nekk partenaire ci événement bi nga xamante ni mu war a am le 18 ak ak le 18. donc mm-hmm. effectivement donc comme ni ko Maria waxee donc voilà en fait boo xoolee man agriculture bi ñu que ça fait gisoon Mm-hmm. Euh, mu def partage yi. mais mais mais loolu fàtt naa ko sax orbite foog ma xam fu orbite jógee <laughs> orbite moom foog ma xam fu mu jógee waaw. waaw <laughs> ok vas-y. voilà donc comme je le disais en fait bon Mohamed moo ma moo ma kii euh, moo ma contacté ñu waxtaan si man daaw bon l' édition passée gisoon naa mu partagé ko bien vrai que j'ai pas pu participer à l' événement mais gisoon naa ni que voilà ça a été une petite réussite. voilà donc ba mu ma contacté ñu commencé waxtaan il m'a dit que bon dafa bëggoon euh, il voulait euh, communauté yi bokk seen donc moi j'ai trouvé que c'était euh, mu nekk benn idée bu xam ni voilà c'est exceptionnel parce que boo xoolee ñoom ce qu'ils font déjà dans l'événement day permettre ça rejoint un peu tamit lu ñuy def ci communauté yi rassembler nit ñi partager donc presque même but objectif la ñuy viser donc sur ça après Mohamed ba ñu waxtaanee ñu commencé ma commencé xam Alex donc comme ni ko euh, Maria waxee ak Mohamed ah donc Alex nag nit koo xam ni voilà bien vrai que ñun on est des jeunes ay xale lañ moom moo ñu mag mais bon dafa nekk nit koo ne dafa ouvert euh, bu cool bu sympa donc franchement c'était super après bon par la suite euh, on a fait le lien avec tous les autres communautés yu ñu xam pour def benn rencontre toog waxtaan après ñëpp on était tous sur le même si même onde bi ñun ñëpp daanaka ñoo bokk xalaat après on s'est dit pourquoi pas jël def ko suñu événement te franchement gëm naa chacun chaque membre de la communauté boo xam ne am na possibilité ñëw participer participer si événement bi dina si jàng lu bëri voilà si wàllu agilité partenariat découverte euh, réseautage moo tax maa ngi ñaax ñëpp tous les gens qui veulent et qui peuvent venir euh, le 17 et le 18 euh, voilà buñ sax toog di xalaat nañ def le tout ba participer parce que ce sera franchement deux journées exceptionnelles ok ça c'est cool c'est parfait et je pense que euh, am na solo trop euh, Galsen Dev aussi dinañ ñëwaat léegi ci Galsen Dev pour xam exactement ñoom euh, lan lañ nar indi ci événement boobu alors suñu waxee aussi événement bi nag Dakar Agitou 2023 am na loo xamante ni képp ku fa ñëw moom ngay xaar maanaam programme bi nga xamante ni moom lañ fas yéene tëral moom lañ fas yéene def ak intervenant yi ci war a ñëw ak naka la war a demee Alex est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci programme bi nga xamante ni moom la moom lañ fas yéene doxal incha allah le 17 ak le 18 euh, ci Dakar Agile Tour 2023 bi. waaw waaw loolu moom mën naa ko def waaye du ma sàcc film bi quoi damay leen di mosal rek ko mm, waaw. waaw euh, <laughs> wax dëgg James Boy rek. voilà voilà non non non non non il faut foog foog ma foog ma denc tuuti suspense quoi. <laughs> mais mais non am na am na am nañu ay surprise waaye lu ma lu ma mën a wax mooy. Euh, vendredi bi. Mm-hmm. le 17 novembre. Mm-hmm. Euh, du doon toute la journée. Euh, ci après-midi bi la commencer quinze heures la commencer parce que bëgguñu nit ñi ñu ñu perte une journée de travail donc il faut vraiment que ñi ñi xam ne c'est pas toute la journée vendredi bi. ok day commencer ay booru quinze heures heures. nga mhm. def sa journée. Mhm. après heure julli nga ñëw fekk si ñu ñu naan caañ relax. commencer tranquillement mhm. caañ bi am na ci solo. voilà gis nga voilà donc. <laughs> ok euh, vendredi bi nag. Euh, waa ñoom Orbit Turner Maria Dawda Kalsen e communauté yi daal ñoo ko moom. vendredi bi daal ñun dañuy dañuy créer cadre créer environnement boo xamante ne mën nañ waxtaan connecté wu rencontrer yenn ay recruteurs yenn entreprise yu fa nekk donc vendredi daal euh, première journée bi demi journée la te pour waxtaan euh, tase euh, jànga waaye li ma la mën wax ci programme yi mooy di ay formation lay doon surtout Euh, am nañu yenn initiation IoT décoration am na yenn speaker yu ñu war a ñëw di waxtaan ci maanaam soo bëggee commencer en tant que freelance. ok ok loolu benn la euh, am nañu ay jeux tamit ay activités euh, ludiques dinañ waxtaan ci nooy commencer projet informatique. Hmm, ok ok. donc euh, loolu dinaa dem ci loolu daa pour l'instant. ok ok euh, mais quoi. <laughs> pour l'instant daal dinaa ko nëbb. ok loolu vendredi kese la. samedi toute la journée. programme bu chargé la am. invité ah. nañu ay spécialistes ak ay experts ci agile ci euh, design thinking maanaam nooy def ba jóge ci benn idée ba créer ko. ok am na am nañ benn expert buy jógee Allemagne buy ñëw seet ñu pour loolu. am na am na ñeneen ñuy jóge France jóge Canada. Euh, vraiment sama réseau bi daal laa laa pour ñi ngi ñëw euh, fii Dakar pour ba mu bëgg a allah Dakar doon benn capitalu innovation daal. moo def ñuy def euh, événement bi te di ci boole communauté tech au Sénégal. au Sénégal voilà. ah non solo trop Mohamed yow aussi comme en tant que partenaire ci. Euh, ci euh, événement bi nii euh, peut-être yow tamit da ngay suivre même chose que gars yi li ñu wax rek doo joxe lépp quoi mais en fait ñamal ñu tuuti rek parce que gars yu bëri xam naa ñu ngi lay topp aussi sur internet sur les réseaux sociaux xam nañ activité yi ngay def mais ñamal ñu tuuti aussi yow ci lan nga xalaat ci Dakar Agitour 2023 bi ak lan nga fa nar a indi ci tuuti rek nga tuuti rek tuuti rek. <laughs> man agriculture euh, ren bi moom euh, xam naa du ñeex yu bëri mais dama nar a passif ndaxte man ñëw en tant que Mouhamed rek damaa ñëw non non non non maa ñëw <laughs> waa communauté bi comme ñoo yor ñoo yor euh, ambiance bi comme gars yi liñ waxee mais man moom dinaa ñëw comme comme daaw ni ma ñëwee rek en partage jéem Euh, soññ ñi ma ñi nga xam ne maa ñi ma tane ma jéem a jàng si ñoom tamit jéem a partagé ñun ñëpp ñu kafandoo fowandoo comme Alex ni mu ko waxee no stress jàngandoo partager partagé euh, ku ci nekk li intéressé man je vais venir beaucoup plus en tant que Futurize euh, xam nga exposer suñuy service wane gars liñ mën def mais en même temps participer en tant que en tant que partie intégrante de de digital. maanaam man man man du ma am benn yére waaye yére yu bëri laay solandoo moom ci jour ba. ça c'est top dinañ dinañ trop quoi parce que en fait euh, rendez la boo xamante ni euh, rendez bu am solo la je pense parce que dañuy waxtaan ci euh, technologie. alors je pense que comme maa ngi koy def benn post fan yi passé rek démb la je pense que technologie tey jii am na benn dayo boo xamante ni. war nañ ko mën a utiliser fépp alors tey euh, bu mu waxee innovation nag innovation ñu bëri nag euh, mun nañ créer lu nekk rek ne innovation la mais yaakaar naa innovation dafa nekk lu sérieux loo xamante ni euh, dafa laaj lu bëri dafa laaj xam-xam dafa laaj comme ni ñu ko Alex waxee léegi dafa laaj ñu tàggat la dafa laaj aussi nga xam naka nga war a doxee naka nga war a commencer sa projet yooyu daf ko laaj et je pense que tey technologie nekk na benn. Euh, benn mbir moo xamante ni mën nañ ci sukkandiku je pense fii ci Afrique avec jeunesse dynamique bi ñu am maanaam bu am jom bu am fit bu am euh, bu bu bu bëgg dem bi am ci Afrique tey euh, je pense que mën nañ utiliser technologie comme benn moyen boo xamante ni dinañu permettre ñu mën a ñu a émerger c'est-à-dire maa koy wax démb ne tey vie bi cher na lépp amatul euh, nourriture yi jafe na lépp cher na mais tey je pense que ñun en tant que des euh, des nit ñoo xamante ni ñu yëngatu ci wàllu xarala yu bees yi war nañ mën a jël suñu xam-xam ko pour sax dimbale euh, secteur agriculture bi ba nga xamante ni am suñu nourriture boobu boo xamante ni voilà fii lay jógee ainsi de suite def ko aussi ci yeneen pàcc yi maanaam santé bi et loolu préparation ñu préparer suñu jeunesse bi moom la Euh, Dakar Agilto di def ci genre dina ci participer bu baax a baax a baax a baax surtout nag ànd ci ak ñoo xamante ni ay experts leen seen xam-xam màcc na ci li ñuy def mais aussi ils sont vraiment expérimentés Alex dafa am ci bëgg yokk. waaw waaw euh, merci El euh, kii am na yenn speaker yi war a ñëw par exemple parce que maa ngi la doon déglu ngay waxtaan ngay wax ci ci agriculture. waaw y a une dame. Mm-hmm. Sini Samba. Mm-hmm. moom entreprise am mu tudd Lionceau. ok moom lu muy def mu ngi utiliser les pratiques agiles di créer ay produits pour bébé pour bébé à, à partir de produits locaux employeur yi fii lañ jógee. fii la koy defee da ngay dem ci di di jënd ay Blédina ak yeneen marques yu jógee bitim réew moom mu koy def ak suñuy produits fii nii te à l'interne ci entreprise am mu ngi utiliser gestion de projet ak pratique agile yi. macha allah moom dina ñëw expliquer naka la koy defee ak naka lay innover. Mhm. ci technique yooyu noonu. macha allah donc euh, am dinañ waxtaan ci agriculture ci euh, agroalimentaire. Mhm. Euh, ci intelligence artificielle. Mhm. man man li li ma bëggoon ci événement bi. Mhm. am na xam la plupart ci événement yi dañuy indi ay tubaab ay ay talent bitim réew. je pense qu'on a des talents locaux. ay ay cerveau yu fi jóge fii nii. il faut qu'on les mette en avant. te ñun bëgg nañ loolu d'accord ces talents là qui soient vraiment mis en avant. loolu d'accord incha allah. voilà je suis d'accord. franchement d'accord et li nga wax noonu am na solo trop donc ñu ngi xaar euh, invité yooyu nga xamante ni ñoom ñoo ngi war a ñëw wax ci agriculture wax ci yeneen yeneen tu vois man je pense que euh, événement bi solo trop quoi franchement man genre événement yi su ma gisee sama xol day sedd quoi parce que euh, li may xalaat rek a jógee ni a ko nar a indi ci jarul nag ngay spoil lu parce que xam naa sinon Alex dina dal sa kaw quoi. <laughs> allez vas-y effectivement comme euh, ni ko Alex ak euh, Mohamed Gueye waxee donc on va tout dire sinon kon euh, li nga xamante ne fas yéene ko ñëw passé ko ak dina nekk loo xamante sa ça sera remarquable di surtout ci contenu bi mais xam-xam bi nga xamante ne moom lañ fa nar a jëlal yaakaar naa si ça peut euh, bu ñu bëggee am intégralité programme bi mën nañ ko dem consulter ci site bi. Mm-hmm. il y a le site web qui est présent je pense c'est ageltourdakar.org Alex si je me trompe pas donc euh, buñ demee foofu dinañ mën a gis programme bi du vendredi et du samedi également et vraiment euh, liñ leen mën a wax rek mooy venez découvrir venez découvrir en tout cas l'environnement agile et Dara IT sera présent il y aura euh, dina am benn activité boo xamante ne dinañ ko animer donc euh, lépp mi ngi ci programme bi kon mën nañ ko dem xooli suñu mhm. paree euh, dinañ leen gën a motiver à ce que ñu ñëw participer ci bi. ok ok ci description podcast bi sax dinañ bind toutes les informations yi nga xamante ni dinañ ko soxla maanaam site internet bi contact yi nga mën a contacter ainsi dinañ ko bind ci description podcast bi buñ koy lancer comme ça nga xamante ni di ngeen auditeurs yëpp dañuy mën a directement dem dem ci lien bi beaucoup Mariétou alors euh, euh, Daouda yow aussi nekk Galsen Dev nekk jiite Galsen Dev euh, lan lañ pare pour journée boobu nga xamante ni journée bu am solo la. effectivement Philippe donc comme ni ko gars yi waxee je que événement ko nekkee fii di wax tey. je mm. pense duñ ko mën a pare parce que li si li nar a xew si jour ji si vendredi bi ak samedi bi voilà dina nekk comment on appelle ça des activités yoo xam ni dina boo fa ñëwee si ñaari jours yi daanaka li ñu siy jàng du mën a du mën a a jàng si année bi mais ce sera difficile nga am décou nga mun découvrir loolu yëpp si année bi donc c'est pourquoi je pense que bon ce que ce que ce que je vais dire mooy képp ku mun ñëw na nga ñëw donc nous en tant que communauté nous serons là présents donc ku bëgg a les communautés xam nu ñuy doxee comment intégrer nos communautés tout ce qu'on fait comme activité muy Galsen di daal di ay tamit les autres communautés partenaires comme euh, Galsen IA wala ñoom CDG. donc boole ñooñu si jour ci surtout le vendredi euh, après midi bi donc ñun ñu ngi foofu. aussi tamit bon programme je pense que ñun tamit euh, on participera parce que boo xoolee y a même certains membres. je peux de nos mm-hmm. communautés yoo xam ni. Mm-hmm. dinañ mën a ñëw. Mm-hmm. def ay tool ils seront présents au jour ci. ok donc loolu laa mën a wax si programme waay waay pour bañ a dugg si si si ma balay Alex mais en fait c'est hyper dama dégg nga wax benn affaire bu am solo c'est-à-dire bëggoon naa ñu indi si benn leeral tuuti ça euh, euh, affaire bi déjà dama dégg léegi nga wax pratique agile est-ce que mën nga ñu wax ci gàttal ci quelque kii rek lan mooy pratique agile euh, pour que nit ñi aussi xaw am benn aperçu tuuti quoi. <laughs> pratique agile ci wolof. ci non non jéem rek jéem rek jéem rek. <laughs> dinaa ko fi ak Daouda ak Mariette voilà voilà dinañ ci am na kenn ku fi gis sax marta aussi je pense que war na mën sànni quoi ay kàddu. <laughs> alors nag. Mhm. Euh, mu ngi jóge ci euh, li ñuy wax ci anglais mindset maanaam ni ngay xalaatee. Mhm. Euh, sooy sooy sooy sooy attaquer problème sooy sooy jéem a liggéey ci benn projet ni nga koy ni nga koy song. am na importance léegi euh, su ñu nee da nga am mindset agile moo moo moo di yaa ngi xalaat solution bi euh, en premier ngay bañ di xalaat yenn yenn détails yi maanaam di bind di documenter yooyu euh, ki ki di jëfandikoo sa solution soxlawu ko du loolu mooy priorité am yow su dee yaa ngi adopté li ñuy li ñuy wax mindset agile da ngay da liggéey da ngay def say effort ci mbirum euh, construire solution bi daal foofu ngay gën a liggéey donc pratique agile yi euh, am nañu ba am na am na ay yu bëri. ok du benn rek pratique. Mm, mm-hmm. nit ñi dañuy wax dañuy wax la méthode agile waaye loolu erreur la pratique yi nag daa fooy jaar ak lool dafa am y a une façon de le faire. ok je vois. donc loolu nag la ñuy la ñu bëgg a euh, rendre accessible la ñu bëgg a vulgariser ci suñuy conférence yi wan nit ñi naka ngay def ba régler problème parce que dafa am benn façon de le faire y dafa euh, approche ci approche boobu nag la ñu bëgg a euh, on veut rendre ça accessible à à tous les entrepreneurs ak tous les leaders qu'on a ici au Sénégal incha allah. ok macha allah loolu laa si wax daal. jéem naa non non <laughs> bon non mais c' est bon Mohamed wala Daouda wala Maritam am na lu bëgg a dolli par ah je pense gars yi d' accord gars yi nee nañ ça va. waaw eh. gis nga non validé <laughs> non validé validé. wax jéem a looy. Alex wax na lépp Alex wax na lépp. effectivement daa tëju Alex Alex li mu li mu wax xam nga tënk na tënk na lépp ci. ok ok macha allah c' est bien. par par exemple El Hadj. Euh, mën nañ mhm. juste si je peux rajouter juste. Euh, li ñuy wax Scrum. Mhm. Scrum. Mhm. benn la ci pratique agile yi. Hmm, ok je vois. xam naa xaw ma ndax dégg mës nga dégg li ñuy wax scrum noonu. Scrum mooy benn ci pratique waaw. Ah. waaw si si Scrum si si bien sûr. voilà Scrum si si. voilà très uh-huh. bien Scrum uh-huh. Master Product uh-huh. Owner. ñooñu ay la ci pratique agile. Alex man développeur la. Ah. développeur la ah ñu noonu. je pense que deux mois yi deux mois yi passé la raxasu ci développement bi mais <laughs> depuis depuis ma nekk Ibrahima ba léegi développeur la. ah gis nga kon kon ñu <laughs> noonu kon xam nga Scrum. voilà bien sûr bien sûr pratique voilà loolu laa bëggoon ok alors xam nga par exemple ñi ñuy déglu des fois euh, ñëpp nekkuñ ay informaticiens donc yi ñuy wax des fois moo tax damay bëgg ñu si dellusiwaat euh, pour expliquer ko nga xamante ni ñoom aussi dañ ci beddi parce que boo xoolee euh, loolu sax mooy essence su moo waral sax émission bi nii parce que dama sentiroon benn instant que ni ñu bëri ñi nga xamante ni defuñ informatique leen xaw a beddi ci affaire yi ba ñoom dañuy dem ba jàpp ne lii du mbir. parce que c'est trop technique alors affaire bi nag moo tax ma ne foog ñu ko wàcc ko ci suuf pour que ñëpp xam ko mais mën ko jëriñoo aussi parce que jëriñoo bi nekkul ne yow nga jóg nekk ingénieur développeur mais tey ki nga xamante ni mu ngi liggéey ci droit mun na dégg ci. Euh, technologie loo xamante ni dina ko intéressé droit am mu dem jege koo xamante ni mu ngi mel ni Mohamed wala mu ngi mel ni Daouda pour liggéey ak moom ci loolu donc loolu moo tax tey euh, barrage boobu moom nga xamante ni moo amoon entre xam te techniciens yi euh, voilà ak ñi ay informaticiens barrage boobu laa bëgg ñu dagg ko tu vois ba nga xamante ni sax ñi nga xam ne ñu nekk ci àll bi war nañ mën a dégg tey Agile Tour tu vois mu intéressé leen tu vois parce que en nit ki li koy aidé kenn xamul lan mu doon quoi mun na jóge fu nekk tu vois innovation mun na jóge fu nekk aussi donc du coup tey moo tax tey il faut que ñuy fexe à tout moment euh, li ñuy expliquer ak li ñuy def euh, li ñuy def kon ñu mun ko di expliquer de manière basique ba nga xamante ni te ñëpp lañ si mën a jot surtout sax suñu rakk yi nekk aussi ci université yi di jàng euh, ñu mën a aidé aussi ci seen choix yi ñuy def dans leur avenir et tout saa quoi donc loolu moo tax may dellu si waat ci yenn concept yi pour ñu koy expliquer am wala fu mu leer quoi mais franchement euh, c' man kontaan naa trop tey ci euh, lancement euh, bi ñu def pour émission bi mais je pas ndax am na yeneen affaire yu ngeen ci bëgg dolli wala déet tu vois ñun mën nañ permettre aussi Mouhamed Marietou ak Daouda ñu wax ñu pour quelques minutes rek une wala deux minutes rek ñoom ci seen entreprise yi def nga xamante ni gars yi dinañ ko mën a xamaale aussi. Alex, ça te va Oui, c'est parfait, c'est parfait. Allez, allez may wax si entreprise bi dama bëgg euh, a rek gars yi importance su par exemple tey jii mhm. événement yu mel ni c'est pas pour événement du panel politique du maanaam loo xam dañ ciy woote parce que ñun dafa am lu ciy gagné réellement c'est pour faire comprendre nit yi euh, tey jii nii suñ demee ba jeunesse bu bëri jeunesse bi ñu yor fii ñu si bëri bëgg nañ mais dañoo manqué d'aiguillage maanaam dañoo xamul woon aw wala li ñu bëgg sax dañ cee xamul lu bëri mooy indi may tàmbali suñu jeunesse su université bi naan informatique dafa saturé wala tel secteur dafa saturé fekk ne réellement saturé mais manque de compétence moo si am donc genre événement yu mel nii dina tax boo fa ñëwee boo si jàngul xam-xam di si jëlee jom boo si jëleewul jom di ci jëlee connexion boo xam ne tey jii nii dina la mën a permettre nga am nit yoo xam ne dinañ la mhm. am repère dafa baax xam fi ngay teg sa tànk dafa baax te booy dugg ci xar lu lu lu lu mel ni xarala yi faaw nga mën a fan laa war a tàmbalee fan laa war a jëm ak fan laa ji fan laa yegg ji moo tax genre événement yi même ci ñi nekkul ci xarala yi euh, rien que ci ci ci ci tey jii Alex bi ñu doon wax sànq ndaw si nga xam ne moo yor boitam bi nga xam ne day créer ay produit yu mel ni Blédina yu mel ni euh, ñoomin seen pour xale di ko defaree fii yooyu nekkul ci xarala bi mais tey jii nii impact bi mu am euh, ci ci ci ci suñu réew mi fii ku ko am di nga topp ku xam ni ñu koy defee di topp moo tax genre événement yi nii en dehors de xarala bi en dehors de partage beeg yooyu dina permettre tey jii nii ndaw yu bëri dinañ ci gis seen bopp ba tey jii nii xëy na xam naa ni sori na mais xëy na dina leen permettre lu bañ a dem di wuti ji bàmmeel ci biir ndox. ah oui surtout surtout surtout. donc ça c'est important. tey jii c'est vraiment dommage de gis ndaw yu bari suñu réew di jël gaal gi di dem muy lu metti mais tey jii nii dëgg la dëkk bi metti na. mais bu ñu xataraayoo bu fi toog jëm ko defar duñ dem. Mhm. moo tax xaar yi nii mën a teew rek nañ ci teew. ndaxte am na solo bu mu. macha allah ñu nag pour revenir sur loolu. ñoo ci wàllum euh, lépp luy innovation technologique lépp luy wàllum transformation digitale mm-hmm. maanaam nga yor sa business soxla euh, noo ko ci ma ci ci xarala wala en utilisant des applications ci wàll ci de manière transparente wala quoi que ce soit ñun ñu mettre la en place benn service wala benn plateforme bu koy def mais aussi ñun dañoo yor branche start boo xam ne day investi day euh, intervenir si lépp lu ñuy participer mooy maanaam euh, rendre suñu suñu ville yi un peu plus intelligente ak un peu plus euh, kii xam naa ne loolu nag day yaatu trop pour ñu expliquer ko fii. non mais euh, orbite ci bëgg ay. orbite foog nga ñëwaat orbite foog nga ñëwaat ci benn épisode incha allah parce que <laughs> voilà li ngay def intéressé nañu trop quoi ça va. voilà ku ci bëgg information rek mën na ko gis suñu site web futurize point com. marche. ça marche merci beaucoup Mohamed euh, Daouda allez yow lan nga lan lan nañu mën a wax rek rapidement euh, quelques minutes rek rapidement ci euh, Galsen Dev voilà rapidement pour ñi nga xamante ni xamuñ Galsen Dev peut-être. waaw bon si Mohamed bi ñu commencé wax. donc événement bi bon dañuy gis ne suuf bu ñu waxee wàllu tech y a y personne yoo xam ne ñoom dañuy dañ dañ siy génne seen bopp mais je pense que événement bi. Euh, doon na loo xam ni bien vrai que ça parlera de tech mais je pense que nit ku nekk war na si mën a ñëw euh, jëriñu parce que voilà euh, comme ni ko Mouhamed waxee ah boo fa ñëwee di nga fi soit di nga jàng soo amul temps jàng soit di nga découvrir ay nit ñoo xam ni dinañ la mën a servir après dans ta carrière soo nekkee étudiant wala nga nekk koo xam ne da ngay wër liggéey wala soit tamit voilà boo ñëwee li ngay gisee nit ñi ni ñuy comment ils partagent comment ils font donc loolu tamit mën na la mm-hmm. a gën a gën sa gën a gën a xarmat waaw si si voilà avancer euh, mm-hmm. exactement avancer ses objectifs mm-hmm. donc c'est ça donc euh, euh, Agile Dakar moom je pense que c'est ouvert à tout le monde voilà képp ku mu munti doon rek soo amee opportunité ñëw rek donc nous invitons tous à venir léegi pour revenir tamit si Galsen Dev donc Galsen Dev bon je pense que am nañu on a eu l'occasion de venir deux ou trois fois sur le podcast comme ni nga waxee cinq ans donc Galsen Dev c'est une communauté de de développeurs peut-être yenn yenn yenn yenn nit ñi mën si bañ a gis seen mais je pense que c'est une communauté pour tout le monde aussi. waaw si si voilà mu bañ a nekk développeur donc les gens qui sont dans l'informatique qui travaillent autour de la programmation ñëpp ñu ñu liggéey si wàllu développement si communauté bi lañ bokk. voilà donc on est à peu près bon une euh, mille quelque chose comme ça donc on est Galsen Dev depuis 2018 lañ ko créé donc depuis boobu ñu ngi def ay activités ay récemment rek la semaine passée ñu ngi defoon benn événement présentiel avec la communauté donc les gens ont présent donc euh, nous sommes aussi présents partout sur sur euh, réseau yëpp donc soo leen bu soo leen bëggee rejoindre donc c'est simple vous pouvez aller sur notre site voilà donc on est là pour euh, pour jàppale nit ñi képp koo xam ne soit nga nekk étudiant wala nga nekk professionnel si tu veux découvrir wala partager wala nga bëgg a voilà.

faral di wax ne tout tout temps ne ma liggéey bi euh, quarante pour cent de travail la soixante pour cent bi yëpp di des yëpp networking la war a doon quoi parce que networking da lay ubbil ay porte da lay yokk ay connaissance parce que nit ki sa ruq li ngay gëstu rek dawul keneen dina am leneen loo xamante ni xam na ko wala mu ngi koy def mun na baax ci yow mun na la jëriñ te échange bi ak networking bi moo koy indi même opportunité yu bëri sax networking moo koy indi c'est juste la rencontre entre des compétences et des opportunités compétence yi mooy li nga toog di ko liggéeyal sa bopp ba am ko tu vois mooy sa xam-xam bi sa lépp mais aussi boo amee xam-xam boobu nag foog mun ko am foo ko jëriñee comme li wax ci olof aussi naan jaay laalo fi ñuy tayee cere tu vois sooy jaay laalo foo xamante ni ceeb lañ fay togg kenn du ko jënd donc du coup tey nga am espace yoo xamante ni da nga mën a sa xam-xam nga mun ko fa wane ba am ay opportunité ak ñeneen nit. yuy abouti ci yeneen yeneen mbir dafa am solo trop donc c'est très important le networking ñu bàyyi ci xel bu baax Mariétou lan ngeen euh, lan ngeen mun a wax itam directement ci euh, Daara IT avant ñu jàll directement ci Marthe Martha bi nga xamante ni tey je pense que événement bi yëpp amee euh, maanaam podcast bi nii moom aussi participe la ci lu bëri moom ñu si sànni ay kàddoom aussi allez Mariétou non di gën a firnde nga Ibrahima mu nekk loo xamante ne lu am am solo la xam te ne war nañ ci mën a ñaax nit yi di ne événement bi ak lu mu mënti jar yaakaar naa ne njëgam jar na ko ndax te jii nii lu leen mën a garantir mooy que ne chaque mois ñu ngi fay école lu ëpp ay cinquante mille wala ay cent mille francs ñoo xamante ne seen mensualité la ci ay débouché yoo xamante ne xamuñu sax nu ñuy def ba jaar fa événement bi ñëw permettre leen. ngeen mën a xam te jii nii ñu ne la ah di euh, maanaam booy jàng développement wala boo nekkee ci sécurité kat tu peux être ingénieur wala mën nga nekk benn euh, auditeur mais xamoo naka ngay def boo nekk auditeur ndax buñ la jàngal comment faire comment devenir on te man dañ lay jàngal juste lii moo fa nekk mais nan ngay def ba doon loolu duñ la ko jàngal léegi nag euh, les événements sont là. rencontre ñi nga xamante ne doon nañ ko ba pare ñu ne leen ah fii kat boo leen ko bëggee def lii ngeen di jaar ci yoon bii ngeen war a teg donc loolu yaakaar naa ne bu la newoon sax entrée bi cent mille francs la sax yaakaar naa war na la mën a jaral parce que au moins yow li doon xaar pendant neuf mois di nga ko mën a en une journée wala maximum deux jours donc Euh, comme ni nga man je suis présidente Daara Haïti donc Daara Haïti euh, pour fàttali la ak benn communauté boo xamante ne dafay dajale képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci wàllum technologie informatique. Mm-hmm. donc nekk dafa ëmb ndax euh, bu ñu informatique dafa yaatu di nga ci fekk les développeurs di nga fi fekk ñi nga xamante ne ñooy def cybersécurité di nga fi fekk ñi nga xamante ne ñooy def réseau et système am na même une am na même commission anglaise ak. pour ñi nga xamante ne pour apprendre l'anglais technique ak aussi benn commission juridique nga xamante ne moo ñuy dimbali ñu war a xam lan lan la euh, yoon wax ci mbirum technologie donc ñoom ñoo nu si jàppale des fois suñu bëggee def ay activités yi nga xam juridiquement la légalité et tout. donc euh, di wax rek Daara Haïti sera là-bas te képp koo xamante ne yaa ngi membre de Daara Haïti euh, rejoins sur activité boobu noonu vraiment euh, dinañ si gis seen bopp on est assez nombreux maintenant et on est partout sur les plateformes sociales mhm. donc ñu ngi xaar di xaar vraiment à ce qu'on membre yëpp ñu dajaloo ngir bokk benn objectif boo xamante ne dinañ ko rootee buñ demee xel ko suñu bopp. macha allah macha allah franchement merci beaucoup alors comme ni ko waxee léegi rek. Euh, lii tey bu ñu ko organiser maanaam euh, organiser podcast bi te am na yeneen surprise yu ñu leen waajal peut événement bi euh, mais comme euh, dañoo am policier bu fi nekk ñu ne ñu ngi spoiler donc duñ spoiler quoi am problème nañ noppi. <laughs> Alex lay tooñ donc du coup mais am na responsable boo xamante ni tey moo nekk euh, ki ñu wax Martha moom moo nekk euh, responsable des opérations euh, ci atypique tu vois et donc moom aussi dinañ ko jox kàddu mu wax ñu tamit impression moom ak lan bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal mais di ko remercier parce que moom bokk na si ñu coordonné podcast bi nii ba nga xamante ni tey ñu mun ko enregistré Marie Martha Ibrahima déjà merci beaucoup ci liggéey bi ngay def gis nañ ko rafet na torop ñu ci ñaanal avancement bu bëree bëree bëri merci merci Africa communauté yi ay muy Daara IT Galsen Dev Galsen AI Women Techmaker ak GDG ñëpp vraiment ñoom Futurize ñëpp ñu ngi jàpp bu baax a baax a baax ci événement bi gis nañ li ñuy def ñëpp te ñu ngi leen ci remercier bu baax mhm. merci beaucoup par uh-huh. rapport ak événement bi. Euh, ak événement lu bëri dañ ko war a lu bëri dañ ko war a def lu bëri des na te def il faut nga commencer fenn manière de euh, jàllale euh, peut-être connaissance yi am xam-xam am mën koo jàllale ba ñëpp mën ci jot événement bi am na solo torop te lenn am na. année bi ñun waajuñ ko woon ndax yeneen projet yi ñu ci ñu doon avancé mais ñi ñëwoon daaw ñoo ñu ne waaye yéen Agile xanaa du am ren Agile Tour xanaa du am ren ñu ne ah li am na solo nañ ko defaat et pour cette fois-ci nañ gën a yokk espace bi gën a a indi nit yi pour ñu mën a jàng et que ñu mën ko jëriñoo plus tard comme ni ko Mouhamed waxee boo fa jëleewul xam-xam jëleewoo fa ay. Euh, ay techniques yu bees di nga fa jëlee jom parce que di nga dégg par exemple benn Maria ñëw expliquer le parcours am nga ne ah kii de inspiré na ma man di mën naa defee nii ak nii ak nii objectif wu conférence yi mooy bu buñ demee ba ci biir dañuy am communauté boo mhm. xam ne boo soxlawee dara di nga mhm. mën a tourner kenn ku la ci jàppale mhm. nga mën a avancer ci yow ci li ngay def ay activités yu bëri bëri pour ku nekk boo ñëwee nga mën ci gis sa bopp euh, voilà comme ni ko Alex doon añ bi lépp ngi ci biir du manqué inchallah dara boo leen tuddee caayin beeg sama xol bi sedd ah <laughs> rate lu rëy di nga rate lu rëy di nga rate opportunité bu mag donc ku si mën a ñëw rek ñëwal mhm. Siteu baa ngi fi jënd ticket Maxta dina dina am ceeb ceebu jën <laughs> ma ne la ah. li ko ko tax dafa dëng lu rëy parce <laughs> que <laughs> añ de damay ñëw añ si de du ma añ de non c'est cool c'est parfait maat si mhm. xam-xam nga xam-xam du doy ak mhm. surtout connaissance yi nga fa nar a jëli surtout surtout non mais franchement merci beaucoup euh, maa ngi remercier ñëpp ñëpp ci seen intervention mais avant ma koy fàtte aussi kenn ku ci nekk fi nga toog s'il vous plaît mën nga def benn selfie photo comme sa nga envoyé ko ci groupe parce que dañ koy monter après euh, kenn ku ci nekk fi nga toog en live fi ngay toog di def enregistrement épisode bi nii envoyé benn photo comme ça après dañ ko dañ koy après quoi d'accord c'est bon Ok, ah. c'est bon. alors on n'a pas fàttewuñ dara wala am na loo xamante ni bëgg ngeen ñu waxaat ko wala euh, dites-moi. Alex Mohamed Galsen Dev. waa euh, Ibrahima xanaa ma yokk ci dara rek. par rapport ak ticket mhm. donc euh, ñaari type lañ am. Mhm. léegi ticket boo si ci jënd am na ay avantages yu la siy jox léegi ticket boo si mënti jënd aussi ce sera pour les deux jours di nga si mën assister le vendredi ak le samedi ticket standard bi mu ngi jaar vingt cinq mille ticket premium bi am aussi am na mu ngi jaar trente cinq mille léegi nag avantage yu bëri mu ngi ci biir ci ticket yi ci si boo si mën a jël rek ok ok ça marche donc kon ñi nga xamante dañoo bëgg participer euh, am na ay ticket yoo xamante ni ñu koy jënd te bu ñu demee aussi ci site bi nañu am toutes les euh, informations yu ñu soxla foofu noonu. mais bu amee yeneen partenaires yoo xamante ni bëgg nañu aussi jàpp ci affaire bi c'est trop tard wala aussi c'est possible ba léegi. bu amee yeneen partenaires yu bëgg ñoo participer ku nekk mën nga ci dugal sa loxo vraiment ba affaire yi. ça marche ça marche. ça marche allez donc ñu ngi ci fin wu épisode bi te xam naa ni tey am na ñoo xam dañoo war a jël seen vol tey donc du coup euh, donc fi nañ ko yemale franchement maa ngi leen di sant di bu baax a baax lan moo nekk seen mot de la fin rapidement quelques secondes Alex. wala euh, Alex euh, xaaral yow tëj Alex yow tëj yow tëj daaw da ñëwal ba pare. <laughs> waaw waaw moom ngeen ne Alex Tine. waaw gis nga. <laughs> donc man ma woon de mon côté donc pour opportunité bi ñu may voilà di di nuyu tamit encore une fois tous nos invités qui sont ici présents donc man sama dernier mot sera juste de vous inviter tous na ñëpp ñëw participer donc personnellement moi de mon côté j'invite les membres de notre comité Galsen Dev je pense que voilà semaine bii di bii ñuy dugg si on fera le le maximum pour gars yi a xam lépp lu. lépp lu war si événement bi pour gars yi a mën a participer. ok voilà. ça marche sa marché merci merci beaucoup ana alors Mouhamed acca yow la mu nekk sa mot de la fin. non man maa ngi comme comme ni ko daw doo waxee maa ngi invité ñëpp ñu ñëw euh, partager kafandoo fowandoo réewandoo euh, jéem a jëmmal événement bi def ko suñu yëfu bopp di leen jox rendez-vous incha allah le le le ak le 18. ngir ñu ñëw euh, motal li ñu leen li leen wax ci programme bi dina neex dina mhm. euh, euh, waxtaanandoo lépp wax nga ko mais fàtte nga añandoo naanandoo ataaya añandoo naanandoo ataaya beeg yéeg <laughs> bisab bi <laughs> c'est top <laughs> allez Marietou lan mu nekk si mot la fin rapidement alors cant ak ngërëm Ibrahima vraiment di la remercier xam naa ne jàpp na nañ ko préparé j'avoue c'était trop bref mais bon alhamdulilah yaakaar naa ni on a fait nécessaire donc ñu la ciy remercier di remercier waat ñi nga xamante ne ñoom lañ defandoo podcast bi pour seen disponibilité di leen jox daje le 17 et 18 euh, novembre incha allah au cercle mess des officiers moom moo nekk en face port pour ñi nga xamante ne voilà c'est facile à accéder donc hashtag Agiltour 2023 bu leen ko bu leen bu même vous le faites pas raconter bu leen ko kenn nettali en tout cas pour ñu dëgg kaa ñëw leen. waaw ñu ka ça <laughs> gratuite la donc ñëw leen partager moment bi di ngeen lekk ba naan doon naan lii. voilà merci merci beaucoup ku bëgg kaa teg teg lool teg teg lool Martha la moo nekk sa la fin. <laughs> <laughs> opportunité bi ñu jox ñu mën a jàllale information yi ñu am yëpp merci beaucoup communauté ñu ngi jàpp ci liggéey bi bu baax ak suñu yeneen partenaires yi nga xam ne ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo pour événement nekk réussite donc ñu ngi leen di jox daje le 17 ak le 18 novembre si cercle Mass des officiers wetu amul paas na ma ko wax ma ñëw jël si ko dégg ngeen amul benn problème. Ah, waaw. <laughs> allez euh, donc franchement merci beaucoup Alex yaay tëj affaire bi lan moo nekk sa mot de la fin mais bu leen fàtte seen photo yi ci ci bi s'il te plaît envoyé leen ko voilà Alex vas-y. Elib. Euh, vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant ci li ngay def. Euh, ci mm. bi vraiment macha allah. Mm. jëm kanam. Euh, alors le mot de la fin euh, mbir mi daal bu leen ko manqué soo leen ko manqué moom seen bopp dina metti mm-hmm. comme comme l'a di Martha ak Mohamed. Mm. ataaya dina fa am. Mm-hmm. ceeb dina fa am. Mm-hmm. mbir mi daal du conférence bu simple daal conférence bii. c'est ah bokk na ak yeneen yi. c'est cool dañuy ñëw c'est relax c'est pas formel. ñëw on entre amis. Euh, pour jàng échanger ngir Sénégal ak Afrique jëm kanam. Mm, merci beaucoup conférence bi du conférence su informaticien du conférence su technicien conférence su ñu bëgg jàng liggéey tabax loo xamante ne dina dëgër pour suñu dëkk jëm kanam daal. loolu moo tax ñu def lii dañuy gis ñi ñi ñuy jël gaal yi di dem fële alors que fii talent am na opportunité am na ci dëkk bi dañu bëgg ci conférence bi ñi ñi gis ne mën nañ def lu bëri ak li ñu am fu mu nekk nii fii Sénégal donc lii moo tax ñu def Agile Tour. du conférence su technique conférence su jàppalante la conférence su euh, jàng ak euh, uti fa ay ay connexion daal. macha allah on fait Agile ñu ngi leen di ñu ngi leen di xaar cercle mes officiers. Mhm. le 17 en après-midi. Mhm. et le 18 toute la journée le samedi. Mhm. ngir euh, def Agile Tour Dakar deuxième. Dakar incha marche merci beaucoup. mais def nga sa mot la fin je pense voilà. waaw def naa sama mot de la fin. waaw na gis nga man sama bopp bi commencé naa dem quoi c'est grave. <laughs> non ataaya bi moom foog mu ñëw. Euh, non foog mu ñëw foog mu indi lowal deuxième troisième ak tarxim voilà foog mu am. <laughs> <laughs> allez les amis merci beaucoup franchement maa ngi leen di bu baax baax ci seen euh, voilà initiative bi déjà mais aussi ci li ngeen accepté ñëw ci émission bi nii podcast Wolof Tech euh, ñu koy def chaque week-end mais aussi di ko def tous les mercredis pour découverte yi pour initiative yi pour événement yi euh, voilà ñu leen jox dégg daje incha allah ba beneen week wala benn mercredi incha allah ci yeneen épisode bu bees merci beaucoup les amis et à la